te nag ñu amoon fii donc euh, benn xew-xew boo xam ni dañuy sawar donc bàyyi suñu yitte bàyyi suñuy lépp donc ñëw teewe ko parce que suñu frère suñu xarit donc suñu mag suñu lépp di responsable politique di Babacar Massar Mbengue en même temps nekk donc euh, conseiller municipal au niveau de la municipalité de Thiès Nord tey moo fi def benn action citoyenne boo xam ni danoo jàpp ni donc képp kuy citoyen rek donc war nga ko mën a véritablement donc roy parce que comme ni ngeen ko xamee donc tey ñoo ngi taxaw taxaw ci kanaalu Kër Maam El Hadj bi plus précisément ci exutoire bi nga xam ni moom moo sekk ngent ak taaxi kaw exutoire boo ko déggee mooy fi nga xam ni foofu la kanaal bi yam euh, mu amoon ci nag donc ay bouche yoo xam ni donc aération la woon euh, pour ñu fermer woon ko hermétiquement également bàyyi woon ci aération pour que donc euh, canal bi di mën a nooy mais kat ñenn ci ñun ci citoyens yi xëy na donc ak seen ñàkk xam dindi woon ko fecc donc seen i aajo mu nekk nag donc benn ouverture boo xam ni am na ñu ci doon profito réellement donc di ci këpp mbalit këpp mbalit euh, ba affaire bi donc dem na véritablement ba am beneen melokaan alors loolu nag bi ko nit ñi gisee am ay citoyens donc yi ko gis am ay riverains yu ko gis interpellé woon ci donc l'honorable le conseil municipal donc Babacar Massar Mbengue di euh, responsable politique biñ ko ko donc waxee moom mu bàyyi ay itam yëpp ñëw xoolal ko boppam également jël engagement kubéer yooyu nga xam ni teggi nañ ko mu ni moom donc dina ko fermer waat donc ñun nag jëlawuñ ko donc lu tuuti jëlal nañ ko donc action bu rëy rëy rëy moo tax ñun en tant qu'institution en tant que maire yi on s'est dit que ni tey lu ñu jàppoon dinañ ko bàyyi donc loolu nga xam ne def na ko tey mu nekk modèle donc nekk image boo xam ne ku ci nekk war na ko mën a copier ñun dañuy ñëw donc taxawu loolu donc euh, monsieur le président Babacar donc euh, la municipalité de Thiès Nord les riverains qui sont ici ñi nga xam ne ñoo sekk canal bi mu nekk waa Taxaw nekk waa Ngent donc amuñu sa fay ñoo ngi lay sant di la gërëm te lii njëkkewoo ko fii ku la xam-xam ni donc ci développement la la xam ku la xam-xam ni donc ci euh, action sociale donc la la xam donc li tey boo ko defee donc dañuy duñ ne gulet euh, du ñu def rek donc lu dul ñaanal la yàlla mu gën a yokk donc say capacité yokk say euh, man-man ba sa ambition ak sa mission politique bi nga xam ni donc am nga ko donc yàlla jàppale la ci yàlla fulal la ko nga gën a donc taxawu askan wi donc donc askan wi donc gis seen bopp bu baax lii nag nga def donc maire lii nga def donc gouvernement bi nga ko defal parce que yéen ñëpp xam ngeen ni donc démb rek am na donc ay action yoo xam ne fii amoon na fi waa ONAS ñëw nañ fi donc di ko di ko curé parce que canal bi donc dafa salte woon donc loolu nga xam ni gouvernement bi lancé woon na ko mu nekk donc des travaux de curage yow bay nga ci sa waar parce que jël nga donc ci sa poche donc def une participation symbolique donc loolu nag dafay doon yoon donc àdduna bi ñëpp xam ko ñu xam ni lii nga xam ne tey def nañ ko fi mu nekk donc cette belle action la donc l'honorable le conseil municipal l'homme politique Babacar Massar Mbengue donc moom moo ko fi def donc ñu koy xamal autorité yëpp di nga xamal population yëpp donc ñu ñaanal ko donc yàlla yokk ko voilà mu réussir donc sa sa mission politique te xam naa ni sa mission politique bu ko réussir rek donc les population les citoyens donc dinañ ci gis seen bopp aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp waaye rawatina diggante ngeent ak taaxi kaw fa tabarakallahu fi nga xam ni fii la ñu taxaw tey jii di kondir bi nga xamante ni bi mi ngi ci diggante ngent ak taaxi kaw foto fa tubaarakallaahu ñu ànd ak ki nga xam ni mooy président Babacar mbeng ko koo xamante ni bii ku am taxawaay subaak ngoon guddeeg bëccëg fa tubaarakallaahu yëkkati ki nga xam ne mooy imaam Omar Dem fa tubaarakallaahu alxaaji Ngañ Fay ak imaam Babacar Siin fa tubaarakallaahu ak mboolem délégation bi ñu àndal waaye bi ñu ñëwee fekk fi mboolem ñi nga xamante ni ba ay responsable lañ nekk ci koñ bi fa tubaarakallaahu sama kaddu yi ki ma gën a tax a jël kaddu mooy ki nga xamante ni bi fa mooy adjoint au maire bi nga xam ni moo daane léegi kàddoom jël ay kàddu yu rafet wax ni président Babacar ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla ci taxawaay bi nga xamante ni bi am nga ko ci koñ bi mënoon nga ni lii liggéeyu maire la nga ci concurrence ak maire waaye defoo ko da nga ni kat man ginnaaw doomu ngent laa doomu taaxi kaw laa waaye doomu Cees laa doomu dëkk bi laa kon fa tubaarakallaahu li ma am dama koy bokk ak jaami yàlla waaye dama koy bokk ak fi nga xamante ni bi foofu laa juddoo fekk fi baax fa tubaarakallaahu mooy diggante ngent ak taaxi kaw kon président Babacar Cheikh Babacar yal na yàlla gën a dolli sa jàmm yal yàlla gën a dolli sutura ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa tubaarakallaahu yéen ñi nga xamante ni bi yéen a dëkkee ci wet gi bàyyi leen xel liggéey bi ndax lii du lu ndaw lii liggéey bu rëy la ndax li nga xam ni moom la président Babacar Mbengue def mooy li nga xamante ne bii moom la ñu islaam digal te yonent bi sallallahu alayhi def daf ne an-nisaafatu minal iman set dafa bokk ci ngëm yàlla xam nga ni lii wax dëgg yàlla buñ ko bawoon nii bu nawet ñëwee lu ne mën na cee dugg loro gu nekk mën na cee am te moo tax alquran ni ko na ngeen jug balaa fitna di am moo tax sunu borom ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xassa fa tabarakallahu kon sëñ Babacar bég nañu kontaan nañu yal na yàlla gën laa jàppale li Cheikh Dieye Abdoul Khadir Jeylaani si sa wax dëgg la yéen waa koñ bi bu leen fi tuurati loo xamante ni bi day day mën na lor euh, canal bi ku gis nii ñu ko tabaxee waa ku gis nii ñu ko feeree nga xam ni fii fi mu ni nii mbalit xajatu fi kon wax dëgg yàlla nag na ngeen leen ci jàppale subaak ngoon guddeeg ba ca ana sareeti mbalit yi ana oto mbalit jël leen sareet yi wala oto yi bu ko defee di ci def seen i mbalit waaye bu leen koy jug fii fii ndax nawet ñëw na ta feebar day bari te yéen a ngi gis garab yaa ngi ni yoo yaa ngi ni kër yaa ngi ni feebar bu gënee bari loraa nga am kon sëñ Babacar Mbeng doyen ñu ngi lay sant président ñi ngi lay ñaanal suñu borom yal yàlla gën a sa jàmm yàlla gën a dolli sutura fa tubaarakalaaw gox bi nag man fi laa dëkk ndax sama soxna fii laa ko jëlee mu soxna biige yaayam a ngi nii taxaw di soxna maam faama jéey ak ñi mu àndal yëpp damay bañ gaay ni grand sëriñ moo sopp lu mu si ba fii kon ba maa zalika alallaahu bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu asalaamaaleykum mbooloo mi fi taxaw yëpp maa ngi leen di nuyu di jiital nuyoo sunu président Cheikh Babacar di nuyu adjoint maire Modou Diakhaté sunu jarbaat sunu doom di nit ku baax di nuyu tamit suñu cheikh bi nekk nit ku baax lii moom c'est pas la première fois may ñëw di teewee si lu mel nii moom naka jekk moom lii moom mbiram la moom. parce que l'homme social la nit ku baax la moom si lii rek lay dox dañ koy ñaanal yàlla yokk ko parce que lii yombul daal yëkkati sa alal def ko ci sa poche lii yombul parce que baax yombul lii moom très rarement nga koy gis. moom rek laa gis muy dox si yu mel ni à chaque fois may sawar nag à chaque moment saa yu jógee ma jóg di ko ci gunge parce que baax yombul. yëkkati sa alal di ci def à chaque moment chaque instant doo taaye doo sonn ci lépp na ci côté yu du toog journée entière te ni ñëwul foog buntu këram te buntu këram te jëlu ko kenn dañ koy ñaanal yàlla yokk xéewalam defal ko tawfeex ci barka Seydouna Mohamed parce que ki am vélo li la ci toog bés bu amee avion rek naaw ak yow liñ naan olof Ndiaye nee na mag nag ko jambaloo daqaar maccaloon ko ay baaram te lu ne fànn kenn du ko jeex euh, tout récemment yàggul dara fii si robinet Mantoulaye bi def na fa acte bu de noblesse bu mel nii rek ñu am problème lampe mu def éclairage foofu donc dañ koy ñaanal yàlla na yàlla leeral ay mbiram ah sunu doom bi tamit moo jaxate aussi tamit li muy yootu tamit yàlla na ko sunu borom jàppale ñoom ñëpp vraiment yàlla baax la daal macha allah na yàlla yokk xéewal gi mbéy nga boor. xam nga li gën a bon fii si Sénégal li fi gën a bon moom li gën a ñaaw mooy liñ naan fukki nit di gas fukki nit di suul bu ñit di yàq ñi di defar dafa am ñoo xamante ni xaw ma dañoo soxor xaw ma yenn soxor laa ko mën a tudde xaw ma lan parce que mënoo gisee sa moroomu jullit yëkkati di defar comme lii acte bi Cheikh Babacar def ni lii yombul lii rek nii waroon na tax képp ku nekk fii def lii sax waroon naa waroon ngaa gën a mën a dindi def bañ a def lii parce que lii dafa ñaaw dafa salte c'est honte kii dëkk fii mi ngi dëkk koñam mi ngi fële xam nga muy jógee fee def déplacement yëkkati poosam ñëw ak euh, ànd ak sunu doom bi moo jaxate ñu ñëw def lii acte bu rafet bi nii xam nga donc ñoom dañoo war a jéem a gën a fi mu toll gën a bay seen waar di bale di dindi ba mu set bañ a lii bañ fi am lii dafa ñaaw xam nga te ñu ko fi def ñu ngi leen di ñaan ñu bañ ko fi def daal jéem a xool lii mhm. parce que lii tamit du acte de noblesse lii rafetul daal rafetlu ma ko waa jër ngeen jëf merci beaucoup. ah di wax naan leen wax naan leen waa Ngent lii ñun lan ko defal kii yi ñu e, kubéeru kii yi ñu def ci kii bi ngir yàlla buñ ko dindiwaat di di di di ci di ci sànni ay ay mbalit. mbalit yi xam nga ni canal bii mbali rek la canal bii yëpp mbalit la loolu ñun ñoo ci sonn ñun ñoo ci dee xoolal fii li fii yëpp li fi nekk lii lépp ay mbalit rek rek rek la ah, lii lépp ay mbalit rek la du dara lu dul mbalit kan moo ko def les riverains les riverains ñoo koy def du kenn salte bii salte bii nekk fii kenn du kenn ku dul xoolal fële ci kii kii bi ci canal bi fee am na ay am na tey jii la ñu ñëw démb la ñu démb tey jii yow tey jii gis nga lan fa rek ceeb ay kii ganaar lu nekk lan fa fekk mais c'est li riverains du kenn nag les riverains ci boppam ñoom la ñoom njëkk la il faut qu'on la vérité ah les ku ci nekk ku ku ku canal fi mu toll ku canal bi nekk sa buntu kër da ngay defee ni pour mbalit la. ku canal bi nekk sa buntu kër rek da ngay defee ni pour mbali la nañ waxante dëgg nag mais lépp ñi ñu ngi ñuy bëgg a defaral mais ñoom ci seen ñun ci suñu bopp ñun ñoo ko bëggul qu'on se dise la vérité merci. man Cheikh Abdou Khadir Djeylani Cissé laa tudd man maa ngi dëkk Taaxi Kaw bi may dëkk fii c'était en 91 boobu defe naa ne kër yu bëri amu fii bon gis naa ne fii ni mu demee kéemaane na trop li ko kéemaane mooy ni nga xam ne dañuy yàq. dañoo dem ba di ma wooye sax ay chef de quartier te du ma chef de quartier parce que damay taxaw di wax ne lii doo ko fi def loolu doo ko fi def maire bi nag ci boppam li mu dawal ñun d'accord nañ ci man damay wax de yàlla rek a tax may wax te li may wax dama koo gëm di ko wax dama daan contesté de mais keroog ba ba cent cent jours ba Bassirou Diomaye yi ba mu waxee attentivement ma déglu ko damaa gëm na kii c'est un travailleur je n'ai jamais milité dans une partie bi ma dëggee mu wax rek dama ne automatiquement li mu wax uqa la ko waxee te uqa boo ko waxee rek nit ki bu fekkee ne am na savoir vivre day xam ne kii li muy wax uqa kon dañ ko ñaanal yàlla yàlla jàppale ko mission bi ñu am yàlla jàppale leen ba mission bi mu am suñu suñu frère la meng la bon menuisier métallique bi suma boy la ñëw na tegal ma expliqué ma ne ma nii ak nii nii mais dañoo bëgg maanaam bon ñun ñu dëkk ci koñ bi Ndiaye ngi fi Kébé ngi fi ñoom Awa Sarr bàjjanu gox lañ xam nga ñoo ñëpp a ngi fi te dañuy jàpp ci liggéey bi dañu bëgg ñoom ñu gën leen a dooleel ñoom buñ leen dooleelee rek bu boobaa fii liñ fi bëgg dafiy am te dépositoire d'ordure dañ koy ñaan municipalité bi ñu ngi leen koy ñaan ngeen jàppale ñu fi boo leen ci jàppalee rek fii day set parce que buñ fi amee ñaar bu boobaa mbalit bu ñëw man mën naa volontaire xalaatuma dara mën naa volontaire ñu def ko ñu ko fi tuur di ko fi def waaw liñ fi continuer di ko fi def yàlla nañu ci yàlla jàppale liñ fi sentu yàlla na ko yàlla nangu nawet bi nag yàlla na barkel te bu mu yàqal kenn ñun nag dañuy yàqule man des fois bu taw taw bi ñëwee sama genou lay ñëw sama biir nekk waaw sama genou lay bi ñëw mais lépp dañu xam ne mbirum borom bi la waaw bu ñu amoon leneen lu ñu gën duñ fi toog mais yàlla lu mu tracé da nga koy nangu boo ko bañee da ngay gën a sonn yàlla nañu yàlla jàppale jàppale waa taaxi kaw jàppale waa ngent képp ko fi nekk yàlla na yàlla wàccee jàmm ci yow wàccee ko ci ñëpp waaw wasalaam. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu waa commune bu zone nord di leen di leen commune bu zone nord euh, di remercier bu baax euh, monsieur le maire monsieur l' adjoint au maire moom du Diakhaté di un frère. très très disponible ñax kii ñaan euh, mhm. surtout mhm. très disponible pour la commune de la zone nord mhm. di wax rek la commune de la zone nord nañ ko bàyyi xel moom moom du Diakhaté nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax waaw waaw ku bëgg zone nord la ku disponible la pour zone nord la te ku ñemee sonn si nit la di nuyu sama frère aussi Ndiaye Mbeng nekk euh, conseiller municipal mais moom mu ngi jóge ba jaxaaw biñ ko waxee ne ko vraiment dañuy euh, dañuy dañuy poser fermeture fii nii ci kanaal bi dafa bàyyi li mu doon def yëpp daal di ñëw di nuyu suñu imaam yi imaam yi moom duñu ñu yu zone nord mais imaam yu région de Thiès lañu waaw ñoom grand sëñ de Dakar ñoom sëñ Omar euh, Dem sëñ gañ ak euh, imaam siin waaw di nuyu suñu jigéen ñi euh, ki nga xam ne moo ci jiitu rek nekk Tata Camara ak ñi nga xam ne ñoom ñoom la àndal. di euh, remercier encore un jeune un jeune euh, de la presse mu ngi tudd ab euh, Abdoulaye Abdoulaye Seye maa ngi koy remercier parce que problème mu canal bi ñu bëri xam nañ ko ndax moom ndax ay reportage yoo xam ne def na ko waaw tax na mu siiw à travers à travers le Sénégal di gërëm aussi borom Actu Thiès Omar si si présent am di nuyu sama frère di gërëm Malick Dieng grand responsable politique fii nii au niveau de la région de Thiès nekk aussi un un collaborateur xanaa rek di wax lépp loo xam ne homme d'affaires la loo xam ne dafa nekk fii dans la commune de la zone nord ak képp kuy homme politique war nga jéem a suivre aussi suñu exemple mooy comme tey li ñu def tey avec l'adjoint au maire et le conseiller municipal Ndiaye Mbeg mi adjoint au maire Mamadou Ndiaye mooy ku ne rek jéem a def lu mel nii su boobaa suñu quartier suñu quartier dina jag su boobaa problème yi dinañu wàññeeku bu baax a baax a baax maanaam ku ne rek jéem a jël si li nga xam ne moom la la yàlla wërsëgal nga jéem ko con nga jéem si consacré tuuti rek pour sa quartier pour sa commune ñun loolu rek la ñuy ñaan loolu rek te yaakaar naa ne loolu jafewul mm. may wax aussi. ne suñu ASC yi suñu ASC yi dañu leen di tàllal loxo rek dañu leen tàllal loxo pour ñu gën a euh, gën a faggu wala gën a fagaru pour lu nga xam ne vraiment dafay gën a defar dafay gën a defar suñu suñu zone nord moom la ñu am amaana sax ñu bëri ñu ngi ciy yëngatu mais jàpp naa ne war nañ cee gën a mën a farlu war nañu gën a mën a farlu waaw euh, pour vraiment defar suñu commune parce que canal bu toll nii canal bi c'est des kilomètres man jàpp naa ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fii tuur suñu xamoon dëggantaan ne waa quartier bi fii nii am na ay jeunes yoo xam ne taxaw nañu fi taxaw temm ku fi tuur ñu defante ak yow kon jàpp naa ne peut-être kenn du ko tuur lii jar na sax maa ngi wax Iba Gaye ah, parce que c'est le président de l'ASC man de mon quartier taaxi kaw te il est très dynamique moom Iba Gaye man pour man lii jar na sax jël ay jeunes. pour ñu def genre brigade brigade de proximité di surveiller fii nii di monter bu baax a baax a baax parce que léegi suñ ko bàyyee ñu def ci ay mbalit ba mu fees dell dell dell ndox yi su dee ñëw na mais dootul demati dootul traversé ti ndox yi dafay taxaw su ndox yi taxawee léegi après ñu ne waat le maire de la zone nord moom moo liggéeyul wala les euh, les conseillers waa équipe zone nord ñoom ñoo liggéeyul fekk ñoom def nañu seen kéemtalaay kàttan mais population yi ñoom ñooy jël yi di boucher canal bi. man damay waxaat encore les ASC yi nga xam ne ñoom ñoom ñoo nekk au niveau de Nguinth de Taaxi Kaw de Këri Kaw euh, et de Kër Maam El pour ñu xool naka la ñu def ay jeunes yoo xam ne dañ leen di teg ci ay points vraiment pour ñuy surveiller lii nii nii nii nii gis nga ñi nga xam ne peut-être dañuy jaay feraay seen ñàkk xam comme li monsieur le maire doon wax sànq tax ñoom ñu ñëw jënd ay couvercle yoo xam ne ay jeunes ñoom ñoo leen ko jaay. tey tey tey supposons ku fi dëggul ku fi dëkkul guddi jot mu dox dox dox ba surux dugg si musiba la waaw loolu yàlla nañ si yàlla musal waaw waaw loolu loolu ku ko def ah mën nañ ne kat tu es coupable de meurtre mën nga rey nit parce que action la boo xam ne mën na rey nit ah waaw waaw moo tax daal man pour man lii nii jar na fagoro bu baax a baax a baax ñu ngi ñu ngi ñu ngi remercier ñëpp encore une fois ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo fi teew affaire dañu bëggoon mu nekk rek lu sobre waaw comme mënta ñàkk ñu profité ci sensibiliser nit ñi suñu euh, zone nord daal la ñu am ñu fexe ba defar ko waaw waaw na ci ñëpp jàpp nag na ci ñëpp jàpp te gars yi ñu dara dara dara encore une fois lépp loo xam ne homme d'affaires nga lu nekk ci zone nord bëri nañu lool lool lool la commune de la zone nord mënul def lépp l'état du Sénégal nañu xam ne aussi mënul def lépp ñun d'abord ñu ñoo war a jéem a góorgóorlu ci suñu zone nord bii waaw waaw ñu ngi sant bu baax ñu ngi gërëm ñëpp merci beaucoup.